bismillah nu roog sa baay ba ci yéem ci saayir ak wa baatinaa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

ñu na waxtaan bu ci àjjuma ji ca guddi ja ci mënoon teew man leen danaa ko jéem insha may nag nuy dox ba ma teew fi nii ma li ñu waroon a wax yépp ak li sëñ Gana Messere waroon a wax ñu dénk ko ko mu wax ko ndax ak itam teloo maa ngi jéggalu bu baax a baax mooy fàttaliku jëfi ku doon wut yàlla te wut yàlla am aw yoon woo xam ni dee su ko fétal dee su ko làmbatu itam ndax sëriñ tuuba daf daan wax ni maa ngi leen di dénk ngeen moytu fétal ndax nee na fétal fii fu mu doon dong la borom di mujje fétal mooy ku teggi aw yoon jaar ci aw ñàll mooy yoon wu jëmul ci dëkk ngay dem ba yàgg yoon wa dog xamatoo foo jëm wëlbatiku rëcc la rëccu rekk ngay def moo tax mu daan wax ni maa ngi leen di dénk na ngeen di moytu fétal maa ngi leen di dénkit ngeen moytu xër maa ngi leen di dénkit ngeen moytu kiñaan maa ngi leen di dénkit ngeen moytu rëy yàlla nag képp ku koy wut yii moom faw nga nat ko ba taxaw ci kawam doora mën a tegu ci yoon wa jëm ci li lay may yàlla li taxagul sax nga am ko kii tax nu daje nag di sëriñ ma sàmba jóob saam radiyallahu an dafa jógoon di wut yàlla di ko wute ci jaare ko ci wut xam-xam te xam-xam bi ci gën moo di xam alxuraanul seex Cheikh Massamba Diop Sam taxaw ci loolu di wut a xam kaamil bi kaamil boobu nga xam ni Sëriñ Tuubaa nee na képp ku ma bëgg te bëgg gën ma bëgg digu wér di bëgg ku nite di bëgg ku jaar fi yàlla bëgg kuy bëgg ngir yàlla nga jaar fa sëriñ Tuubaa nee na yaa ngi may bëggee ni ma def alquran moo tax mu ni huwa xalilun wa xabib li murniyan li an tabib bihi yuhibbuni labib bihi ci alquran yuhibbuni la may bëggee àll bii ku am xel kon sëñ ma sàmb Jóob saam bi ko yàlla naree booleek sëriñ tuubaa da koo bëggloo alxuraan mi nga xam ni sëriñ tuubaa nee na ku koy bëgg moom te bëgg ga di bëgg ku nite yaa ngi jaar ci bëgge ma fi ma teg alxuraan ndax danoon zahara lii أن اعتزام في الكتاب مع حديث المصطفى هو الصواب Serigne Touba nee na feeñ na ma ma teg sama bët man ci lu wér lu wér la moo di maa ngi yëgal ñépp ni ni nikk ci alxuraan la muy digle nga di ko def la muy tere nga bañ a xam yoon wa ca jëm ànd ak lu la ump ci alxuraan nga jël waxi rasulullahi ju sukkandiku ca ba attewu ca ba mën a jëf la ngay jëf sëriñ Tuubaa nee na huwa loolu assawaab mooy njub ga lu wuteeg lii boroom a ko def waaye du ak njub mën nag nekkuma ca loolu tax mu dal di ni maasikan bil kitaabi maska daririn bi yeddil xaaidil basiril muini wa huwa ishi wa rifati wa kunuuzi wa bihi artaji qiyaadal muruuni man bihi raama rawda saadun anidin qaadahu taa'ian lahu an muruuni wa huwa faxri wa urwati wa jalisi bi ahadisi sil masaayal makkini day bañ nga jaawale ko kenn tax mu ni la ahmad alxaamidiina ahmad rawsi wali rabbi bisaa wa tilka rukuni nii la sëñ Tuubaa def alxuraan sëñ Masamba Jóob Sàmm mii teel a jóg di gëstu alxuraan ba sama boroom may ko ci may goo xam ni cërub yàlla la ndax yàlla yonent bi wax na ni salawaatullaahi wasalaamu alayhi nee na yàlla ñaari njaboot la am ci kaw suuf inna lillaahi lillaahi alayni ahlul qur'aani wa xaasiyatihi nee na yàlla ñaari njaboot la am ci kaw suuf ku jëkk ki mooy ki jàng alxuraan ba xam ko yàlla xamal ko ci la mu xam xamal ko ci la ñuy tere xamal ko ci la ñuy digle xamal ko ci la nga xam ni bu yàqoo ñu mën koo defaraat xamal ko ci la nga xam ni bu yàqoo mu ni su koo defaraat xamal ko ci la nga xam ni boo ko defee loola dafa ëmb waaw moom lu ñuy tudde salaatul bàppi la mooy julli gu yàqu ak julli goo xam ni dafa amut julli gu yàqu mooy julli goo xam ni sunan yi nga am loo bàyyi julli gu amut mooy loo xam ni mafrubaat yi nga am loo bàyyi farata yi sunna mooy looy bàyyi ñaar yoon ñetteel ba mu yàqu farata mooy loo xam ni benn yoon boo ko baax yàqu na lu mel ni sujjóot sujjóot boo ko bàyyee ci julli julli gi lépp yàqu na lu mel ni jàng faatihatul kitaab boo ko bàyyee ci julli lépp yàqu na lu mel ni booy jàng faatiha taxawaay bi ngay taxaw ndéem mën ngaa taxaw boo taxawul te man ko julli gi yàqu na lu mel ni rukkoo bi ngay def téye ci sa ñaari ba bëti wóom kooku boo ko mënee te defoo ko julli gi yàqu na ak siggi bi ngay siggi ba taxawaat boo ko mënee te defoo ko julli gi yàqu na ak sijjóot bi ngay sijjóot lépp sëb ja ci suuf boo ko mënee te defoo ko julli gi yàqu na ak siggi gi ngay siggi ba toogaat boo ko mënee te defoo ko julli gi yàqu na ak li ñuy tudde al i'tidaal moo di nga ni teg doo jaayu jëm nele doo jaayu jëm ne da dal ak li ñuy tudde it mi naan mooy sax ni tekk rek ak li ñuy tudde tartiib mooy jëf ju ne la war jiitu nga jiital ko teg ca la ca des ak li ñuy tudde istiqbaalul xibla boo ko xamee mooy jublu xebla ak li ñuy tudd niyatu te mooy farata bi jëkk ci jaamu yàlla gu mu man di doon mooy yéene ak jeexal gi ngay jeexal julli gi mu di assalaamu aleykum baatub ah ba ci kum maanaam alif gi ba ci miim gi loolu mooy farata ak jataay bi mu àndal jataay ba jiitu ah ji du farata jataay bi mujj kum ji du farata assalaamu aleykum yooyu di fukk ak juróom benn boo ci bàyyi julli ga nekkul bàppi la mais julli ga dafa amut moo tax ñu bëgg nit ku ne lu muy def mu xam ko moo tax Sëriñ Tuubaa doon wax ni yaa ayuha subbaanu in xiftum rajal fa xaddimu taalluman xabla amal sëñ Tuubaa nee na yéen ndaw ñi maa ngi leen di dénk bu ngeen bañee am gàcce ëllëg bala ngeen a jëf dara na ngeen ko xam ba xam lañ ca war a def ak lañ ca war a bàyyi ngeen door a jëf xam mooy jiitu jëf moo tax ñu ni al ilmu xablal xawli wal amal dañu ni xam-xam mooy jiitu wax mooy jiitu jëf moo tax sëriñ tuubaa nag ni fal ilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahu nuurun maa diraaya sëriñ tuubaa nee na xam-xam du jàng wu rëy lool téere bu ñu indi rekk nga mën koo tari ngal ngal ngal ngal ngal du jeex du xaaj waaye la xam-xam digle doo ko def la mu tere doo ko bàyyi waaye nee na xam-xam piir nee na ilmu diraaya lay doon nga xam ni looy bëgg a def xam nga jiitu na te boo koy def ngir jëm yàlla képp a tax bul wut ku la ca tagg bul ragal ku ca ñàññ loolu la alquran di wax wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisin sëñ ma sàmba Jóob sàmm mii nag ba mu jàngee alquran ba xam ko dugg ci kutubu euh, al al ilmiya yi mooy téere yi jàngale fiq te bala ngay jàng fiq da ngay jàng téere tawhiid yi nga xam ni dañuy xam euh, da ngay xam fooy teg yàlla xam itam lan mooy yàlla ndek kuy yàlla moom kenn du ko xam kenn mënu koo xam waaye nag nga xam foo koy teg ak noo koy defee ni ko sëñ Tuubaa doon expliqué ci ay téere yu bari benn bi ñu bi ñu gën muy tasawudu sixaar daf caa wax ni yàlla bu ñu leen laajee mooy kan tontol nii rekk boo bañee sonn neel wa huwa xaddiimun maalahu bidaaya wa suubaqaa in maalahu nihaaya wa waahidun maa in lahu min saanin walam yasal jalla azimi zani bisaati walwasfi wa bilfili maan tafarradal tafarradal fardu ladi la xamaa sëñ Tuubaa nee na yàlla waxuwa moom xaddiimun ba dara amul moo fi ne te nekkam googee tàmbalewul fenn maa la hoo bidaaya amul fenn fu yàlla tàmbalee ku dul yàlla nag am na foo tàmbalee waaye yàlla moom tàmbalewul fenn teyit dara newu fi kon wax wa xadimun maalahu bidaaya waaye wasu baqaa in sëñ Tuubaa na lépp day jeexaat ba mel ni dara ma fee am yàlla des fi waaye nekkam desam googa it maalahu nihaaya amul fenn fu mu yem te kudul yàlla am nga fooy yem yàlla rekk moo tàmbalewul fenn du yem fenn li nit jëfal yàlla nag bu ko yàlla gërëmeet ngir def na ko na ko yàlla bëggee jëf jooju duutu yem fenn fekk yàllaa ngi am ndax jëm yàlla subhaanahu wa taala ja taxat nga def ko loolu moo tax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëgéen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 waaye tamit ci li nga xamante ni mooy teewaayu mboolem euh, média yi nga xamante ni ñoo

àndaloon ak Serigne Khadim Seck ki nekkoon ci kàddu gi di Modou Mahfouz Diakhaté jër ngeen jëf